lu xewati xew-xew bu rëy waa Sénégal waa adduna bi yëpp kan mooy wax ak yéen Ameth Diop mbëkk mbëkk yaari bëri wala wala ma mbëkk dégg maam bii bi dugg lan moo xew lu muy wax lu ma wax yéen a fu ma jëm yéen a ñi ma bëgg ñan la ni ma mel yéen ko waral daal ci Sénégal le 14 octobre. Vous pourriez venir Le 14 octobre, anniversaire Roy Kai. Pour Abdoulé Bien. woo nañ mbooloom képp kuy ndaanaan di ci jiital monsieur le président de la république du Sénégal dara ne une homme y a un grand une femme muy madame Marème Faye Sall kon ca toppal premier ministre de la culture l'enfant de culture nu ngi ko ci woo ak kan monsieur le maire Talla Sylla l'enfant chéri de Thiès

Góora Njaay Xalil Njaay Pape Taaxa ak kàddu kii nu ko bindee Laay Sarr Mass Kokki Kokki dina yëngu de Abba bu Sen TV borom bu leer bi ci biir la Abdou Mbaw député de l'Assemblée nationale Bouba Ndour monsieur directeur programme de la TFM Futurs Médias mi ngi ci biir indil Dakar na door ba na ñëpp ñëw akan Maodo Diouf akan Papa Diouf l'enfant chéri de musique consciente de Dakar akan baax na ci lu Pape Doumbouya ci biir la doon Mass Diouf ci biir la Ami Collé Dieng chanteur waykat bu mag ba Dame Diop ci biir Fatou di Niassa Fall dina ñëw Fatou kan kii nu mu bind soxor kale wala la <laughs> defal naa Fatima Zoyer ah Zoyera di mboose ci biir ak kan kii kan la Ardo Diallo Aliya pël bu rafet ah kooku sama xarit Fatima Diak l'enfant chéri a Thiès maam madame Diatara mi ngi ci biir monsieur le maire Alassane waxoon nañ ko ak Cheikh Tall ñoo ñëpp ci biir ba ci Mouhamed Ndiaye du nu bàyyi kenn bu nu jógee foofu gars ñu woo Déthié Fall ak kan ki nga xamante ni mooy. Baye Djibi Fall le grand footballeur ak Fifita Diallo ak kan Sidi Diouf ak kan Adji Gueye tailleur bu mag bi ak kan Njaxat Njaay Kër Ndeela l'enfant chéri sponsor officiel de euh, festival de Thiès ak Matar Sey l'enfant chéri de Belgique ak kan Mouhamed Ndiaye doomi Alaaji Mor Jaxeer ak kan soxna Faama Ndaw yaay wiyee mborom màkkatal mu karama woo Matar Diop suba teel moo koy tëj kon na gars yi wasalaam fu ma jëm yéena ñi ma bëgg ñan lañ mutar Junjungde gözün tıkılma bözün Junjungde gözün tıkılma bözün